yow de melal nga kàddu yi ba noppi ndax wax nga yan kàddu yu rafet nga ci mën a sànni te dëgg-dëgg yu mel nii lu rafet la loo xam ne ak rafetlu rek moo ci mën a tegee euh, tey jii ñëw naa fi ànd ak ay bokk yoo xam ne ñëpp ay sang lañ may seenu ndonga ànd ak ñoom sëñ Fallou Mbacké ak euh, sëñ Galas Bamba sëñ Abdou Lahad Bousso sëñ Seexuna Mbacké ak sëñ Baye Serigne Bousso imam ñuy ay kilifa ci dëkk bi yoo xam ne ñoom seenu yëmb ci dëkk bi mooy lëggéeyal seen maam Sëñ Tuubaa eh, Seexul Xadim waaye seenu yëngu nag ñu jëmale ko ci xam-xam ak tasaare njàngaleem mi lu mel nii nag buñ ko gisee te ñun lool di sunu laaj ñu ciy bay day am solo lool ñu egsi fi nemmeeku nu mel ndax ñun daa bokk ci sunu liggéey di saytu di càmbar lépp lu rafet ñu rafetlu ko soññ ña ca nekk waaye lépp loo xamante ne sunu gis-gis wuute na caag ña koy def nañ koy defee ñu ñu laaddanti leen eh, wax la xam laabiire leen suñ kem kàttan ci ne leen li Sëñ Tuubaa bëgg lii la eh, ku gis liggéey bu nii nag fii ci Touba eh, egsi fii nemmee ko xam luñ fiy def baax na ci lool waaye ñu wax ne ay soxna ñoo ko taxawal ndax damay gis fee ci sama càmmooñ ñu bindi fa association des femmes de valeur de Touba loolu am na lu muy lu muy tekki lu muy wund moo ay jigéen ñu xam seen bopp ñu dëkk Touba loolu yaakaar naa ci firin wu wolofe su ma ko waxee noonu du juunoo euh, taxawaayu jigéen nag ci liggéey ak ci am fulla xam boppam di jéem dara ak di ko manal boppam di ca dimbalee ña ko wër ak ña ndimbalam mën a egg ca ñoom lu yàgg la ci yoon wi te am ci cëslaay am ci cosaan sëñ Tuubaa mu baax mii nga xam ne moo sanci moo sanci yoon wi woote ko daana ko digle kon ñi koy def nañu xam ne ñi ngi ci ndigalal sëñ ndax eh, jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekkoon di ay waa këram ca njaareem eh, dañu nettali ne daana leen lebal xaalis lu ñuy wax ay fonds de commerce wala ay fonds d'investissement yoo xam ne ko daan jox ne leen na ngeen bu ngeen toogee ci seeni kër kon lam leen njëkk a digal ca loola la nga cey déggee mooy ñu ne ci ay buumi sëy ndax loolu dafa nekk rôle bu principal ci l'islam moo tax Sëñ Tuubaa lépp lu ñuy waxal l'islam rek boo dikkee ci moom da ngay fekk mu mu defee ko na mu gën a na mu gën a rafetee moo tax mooy bu ngeen nekkee ci seeni kër yar seeni doom taxawu seen i borom kër waxtu wa ngeen am eh, muy seen waxtu noppalu ngeen wut lu mel ne ay sër wala ngeen tay lu mel ne cere wala ngeen nocc ay sër yu mel noonu loolu moo xewoon moo leen ngeen koy def bu ko defee di jaay la ngeen cay amee ngeen cay dimbandiku kon eh, toog rek yor ay loxoy kese loolu sëñ bi bëgg ko woon waaye bëggutoon itam ñu nekk ñoo xamante ne dañuy am ay liberté ci def wala wax lu leen neex boo xoolee loolu dafa yaatu ba egsi ci doomam ju baax sëñ Blaat bu so léegi mi ngi ma koy fàttali muy soxna Muslim Mbàkke moom sëñ Tuubaa euh, mu nekkoon ku ñu xam koo xamante ne eggoon na ci sax li ñuy li ñuy wax di exporter ay produits yoo xamante ne moom moo ko doon defar mooy ay produit locaux yoo xam ne da koy def lu mel ne lu mel ne cere yi lu mel ne céréales xeet yi nga xam dañ koy am da koy defar ba mu méngoog jamono mu koy importer muy juge Sénégal di dem ci fu fu bëri ci collaboration boo xam ne amoon na ko ak Senghor eggoon na ci wàllu entrepreneuriat di di di ñawal sax armée bi di leen fournir ay ay ay wàllu wàllu wàllu ay matériel ak yi nga xamante ne dañ koy soxla loolu ab gis-gis bu sori la ci jamono ji nga xam ne moom la doon dund kon bu amee ñoo xamante ne ñoo ñëw gannaawam ñu mën leen askanale ca moom mën leen a tudd di tudd leen tudd moo xam ci deret la moo xam ci pas-pas eh, ñooña wa eh, kooku dafa war nekk seen royuwaay ci loola. donc soxna Moussa kenn ku ne xamoon na ko ci ci ci ci ci dem nekk këram nekk ci borom këram di ko toppatoo waaye amul njaboot goo xam ne gannaaw def na ci ñoom liggéey bu rëy boo xam ne ñoom ñëpp gannaaw bi ñu ngi leen doon topp waa ànd ak loolu yëpp nag liggéeyu këram boobu ak liggéeyu borom këram boobu nga xam ne moo koy may ngërëmal yàlla mu boole kook nag di liggéey liggéeyu boo xamante ne da cay yaxantu di ca gañe dara ba egg ci di mën a soleel armée nationale wala muy importer ay marchandises di ko yóbbu ci àdduna bi fépp di ko xam loolu ci wàllu entrepreneuriat kooku exemple la ci jigéen yi àdduna bi yëpp rawatina jigéeni Sénégal rawatina jigéeni Murit kon ñu góorgóorlu ci loolu ba am loo xam danañ ci mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa te lépp rek ñu def ko ci fulla ak fayda ak jom ndax loolu mooy ndono liñ dolli ci Sëñ Tuubaa maa ngi jégalu bu baax kàddu yi jërëjëf